haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran shukran bi firil jullit yi seen ruux di taxawu mindeef yi ci yoonu leer almahadi firil jullit yi seen ruux di taxawu mindeef yi di leen teg ci yoonu leer ah sang bi di njiitu awliya yi di miinal ruux yi xaybu dëggu leen gotta get down. balal di labal dun di sa mission universelle sa géeju leer gi sa déegu xam-xam yee sa teen yi nga balal di labal dun di sa mission universelle ci ci wala ti TV ñu ngi fii ci 15 mètres di waaja a dalal sang bu terd bi nga xamante ne léegi moo agsi comme ni ngeen ko gisee rek sama ginnaaw mbokku taalibe yi ñu ngi nii taxaw en masse macha allah rabbi def seen installation di waaj a accueillir sang bu terd bi. waaw mbokk yi comme neen ko gisee rek euh, Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh euh, jege si na convoi baa ngi ne rek ñuy seen macha allah moo tax mbokk yi sunu ginnaaw gën a intensifier seen zikr macha allah ci teertu bi nga xamante ne ñu ngi koy teertu fii ci 15 mètres euh, ñu koy suivre incha allah ak seen télévision Waldunia yi kon ñuy jox leen dig daje rek ba ci kanam macha allah. الله نور لا إله إلا الله الله نور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 ngeen ko gisee sang bi agsi na bañ dalal ko ci biir léegi nag mbokk taalibe yi ñu ngi waajal julli timis après julli timis bi dañuy wasifa bu ñu wasifaa ba pare nag après ñu jublu ci euh, programme conférence bi إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله أجمل لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله أجمل لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله أجمل لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله أجمل لا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 حق قدره ولقاء العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر بالحق والهادي لأسرارك المستقيم وعلى علي حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر بالحق والهادي لأسرارك المستقيم وعلى ألي حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر بالحق والهادي لأسرارك المستقيم وعلى ألي حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدم لما سبق الناجح بحقه ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدم لما سبق الناجح بحقه ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله عليه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما خلق والختم لما سبق نفس الحق بحقه ولا هادي أسرك المستقيم وعلى هذه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى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 عائدا بمركز الكوم والمعاني والنور الاكوان المتكون تعلمي صاحب الحق رباني البرق الاسطى بمثل اربع المالئات لكل متعرض من البور والاواني والنور كلام علم في ملأت به كونك الحائط ممكنة المكان yàlla defal ko moom imaam mahdi dundam yépp tegu ca lanoo tuddee xaqul yaqin maanaam certitude yàlla may ko dundam yépp tegu ca lanoo tuddee xaqul yaqin maanaam certitude te dund ci certitude mooy dund ci dund bu yàlla gërëm parce que yàlla bëggul ku koy jaamu ci dut li mu bëgg rek mooy ku koy jaamu te teg ko ci xaqul yaqin su ko defee xaqul yaqin nag dafa am lu koy maye su ko defee li koy maye mooy am wasila bu ko mot te wasila bu ko mot mooy ba nga xam ni diggante rayb ak shahada bii benn lay doon ci moom ni sant yàlla di sant yonent bi waaye di gërëm Mawlaaye Cheikhu Tijani Chérif mi nga xam ni moo bàyyi ba aaxiru zaman jot ñu di ko tuddee mujjub jamono mu ni jàkk projecteuru lumière bi daal di sànni ni ko nag demal nga leeral àdduna kooku mooy kan mooy Mawlaaye Imaamul Mahdi dafay doon farata bu rëy ci jàmm nu koy sant di ko ñaan mu nangul nu dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi nga xam ni mooy Seydi Ahmad te di yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ni moo nu fi boole nu koy ziyaara di ko ñaan it mu nangul su nga defee ngeen waxoon ni thème bi mi ngi tudd la prophète Mohammed paix et salut sur lui un modèle universel muy thème boo xam ni bu am solo ndax bu ñu ñëwee ba ci axiru zaman dafay am ñaari crise yoo xam ni bu ci jullit bi muccee rek dundam mucc na crise bi ci jiitu mooy crise des valeurs crise des valeurs parce que yonent bi alayhi wa sallam moom li mu gëm ni jullit bi moom la war a def yóbbalam mu nekk éducation de base mooy yooyu tuddee les valeurs islamiques boobu mooy crise bi ci jiitu beneen bi ci topp mooy crise d'interprétation des textes sacrés su ñu waxee les textes sacrés nag alquranul karim moo ci jiitu moo tax bu ci crise d'interprétation amee solo ba nga ca waroon jël dëgg-dëgg pour jëriñu solo ba dafay des loolu nag bu xasee ba dal zaman la ciy dimbali njaboot mooy dellu ci source bi te source bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee moom yonent bi dafa bare loo xam ni mën nañ ko jàng ci moom waaye booy jàng ci sang bu toy na yonent bi dangay fexe ba séddale ñaar ci biir jàng bi ci jiitu mooy digganteem ak yàlla priorité ci digganteem ak borom beneen bi mooy digganteem ak ñun te yonent bi sax séddale na wax na ni ana min allahi wal muminuuna minni waaw sama diggante man ak yàlla yéen ñi nga xam ne ay croyants ngeen waaw seen diggante ak man allahu nurullahi la ilaha illa allah allahu nurullahi la ilaha illa allah allahu nurullahi la ilaha illa allah allahu nurullahi la ilaha illa allah allah allah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 mooy insha allahu vendredi le 15 septembre ci la ñu fas yéene def ouverture burdu bi waaw su ko defee nag ni ma leen ko daan diggalee rek comme daayiratul iman moom dafa nekk ci niveau national ak international ouverture burdu bi na ñëpp rek di ko defee ci fi nga xam ne mooy seen siège yu daayira waaw ñu dëkk Ndar defe ko ñu dëkk Kaolack ñu dëkk Dakar ñu nekk Europe naka ñëpp di defee seen siège yu daayira ba guddi Mawlaay Cheikh Ahmadu Tijaani Chérif nga xam ne mooy fermeture burdu bi ñu soogay dajale dina Cheikh insha allahu pour fête cinq jours yi nga xam mooy cinq jours gàmmu gi su ko defee daal ñu ko jàpp vendredi 15 septembre incha allah ci la def ouverture bu groupe bi incha allah yàlla na ko ñëpp dégg yàlla na ko ñëpp fekk ànd ak allah jërëjëf ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا شكرا شكرا